li ñuy jàpp mooy man maa waxoon ni que Ousmane bu indee rapport. rapport laa wax. dégg naa leen ñuy naan ay rapport IGE lay la ngaa mook bépp rapport bu mu indi muy bu IGE bu IGF bu OFNAC bu Cour des bépp rapport bu mu indi man maa waxoon ni ko bu ko indee du ma ñibbi sama kër. kon ma xam ne tooñ naa askanu Sénégal tooñ naa ci mu. dëgg la léegi nag. may ñu jël. waxoon naa ko pour renvoyer.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

Euh, pousse pour ma top ak mom egg bam fam seus mais li firndel li ni ke lepp lu mu yax suba ba ngone jot